asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyuwaat par rapport ak fi ñu nekk ni tey ku nekk xàmmee ne ko si xarkanamu yof muy place bu mucc ayib muy place boo xam ne tey ñi am ay cérémonie mariage ngénte comme du genre miin nañ ko bu baax a baax ndax bu njëkkoon dañu doon déplacé wu à distance uniquement pour am ay fruits de qualité waaye am ay fruits en prix de gros tey yàlla dogal un frère un camarade ku ñuy wax Thierno Diallo ñëw fii si dëkk bi si kàttanu yàlla investiral ñu ko ba nga xam ne dootuñu paas di dem dootuñu jël ay risque dootuñu jéeg dootuñu wàcc waaye dañuy dox ndànk rek ñëw dugg fii très franchement fekk fi ay fruits de qualité yoo xam ne ku nekk xam na ne très franchement c'est des fruits yoo xamante ne ku nekk xam na ne c'est des fruits de qualité léegi nag ginnaaw bu ñu leen présenté loolu dañu leen di wax ne leen rek c'est un partenaire si concept bi nga xam ne mooy lël bi waaye balaa ñuy def dara dañuy wax ne ñu ngi nuyu waa gépp particulièrement waa Yoff mbooloo di jël nuyoo googu di ko teg si loxol ki nga xam ne moo fi toogal tey Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam muy Seydi Abdoulaye Thiaw Laye ñu koy siyaare bu baax di ñaanal yàlla dëgëral ko yàggal ko suñu kanam waaye du fàtte suñu sëriñ suñu xarit Cheikh Mansour Diouf di ko ñaanal yàlla jàmm di ko ñaanal njaboot gi yëpp di wax ne c'est un parrain général si concept lël bi kon Thierno ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax bu léegi nag Thierno tey dañu ñëwoon uniquement pour waxtaan yow. kan bu la présenté si dëkk bi yëpp. dëgg la. tey concept lël bi moo tax ñu ñëw fii lël bi ku nekk xam na ne mooy dajale xale yëpp jongal leen si kàttanu yàlla léegi yow nga ne dama siy nekk partenaire lan moo tax nga bëgg si nekk partenaire. wax dëgg yàlla lu tax ma bëgg a nekk partenaire c'est que man dama ñëw yoof bokk si yoof ñu dalal ma dafa mel ni tey yoof laa juddoo am naa fi ay xarit am naa fi ay mag am naa fi ay rak yoof tey laayeen li ma soxla si yoofu laayeen bu soobee yàlla dina am ñu taxaw di ma jàppale maire yoofu li ma soxla dafa am ñu may taxawoo si gàttal balaa wax ji du bari man tey dafa mel ni fii laa juddoo sekkeeti am naa fii lépp loo xamante ne si lu baax am naa ko si yoofu loolu moo tax lépp lu baax wala lu ñuy jàppale doomu réew mi dinaa si taxaw bu soobee yàlla c'est bari na xale yu ñu war a jongal bi yoon yaakaar naa ñu gën a bari seen fruit yi fruit yi lu ñu lekkee seen ngente fii la jóge loolu bokk na si tax si sama xarit yi ñu war a jàppale xale yi yow suñu taxawee lu mel nii ma taxaw àndal ak ñoom jàppale leen loolu moo tax ma ne dinaa bokk si seen liggéey bi ma nekk partenaire macha allah ke yoof man si yoofu laa bokk te wax dëgg yàlla mm-hmm. waa yoof jàpp na ma jàppale nañ ma c'est bi ñu commencé fii ba léegi mhm. léegi kenn dematul Sandinguer furu wi képp ku soxla furu wi si Thierno Diallo lay ñëw loolu liñ ma bëgg a moo tax ak lu ñu ma yéene mënoon nañ ma bàyyi fii dem feneen mais wax dëgg yàlla bu nit ñi xamee fii ba léegi gis naa sama bopp bu baax a baax a baax kontaan naa si yéen kontaan naa si Yoff maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp ndeysaan mu nekk euh, ma joon kàddu yu am solo yu jóge si Thierno ndax ni mu wax rek mooy dëgg nit bu baaxee fu mu dem am fa lépp am fa ndey am fa baay am fa ndijaay am fa jarbaat am fa maam am fa bàjjen je pense que loolu la feeñal tey si occasion bi waaye ku xam yoof xam ne yoof dëkk la boo xam ne noonu la bindoo noonu la mel noonu la masa mel macha allah kon defe naa gars yi wax jooju leer na kon dañ leen di jaajëfalaat bu baax di santaat bu baax waa yoof gépp si soutenir bi nga xam ne moom la ñuy soutenir si annuellement lël bi ñuy def ba ñu mën a dem ba yàpp na tey ñu ngi en douzième année je pense bien que loolu am na solo kon ñuy jox rendez-vous ñëpp rek di lancer waale un appel ba si Guèye Njaajaan dee leen ñëw fii si Thierno di fi jënd ay fruits te bàyyi mbedd mi ngeen topp di lekkantu ay fruits dee leen jënd fii ay fruits léegi euh, soxlaatuñu dem fenn gars ya ah parce que lépp lu ñu soxla si wàllu fruit rek bu ñu ñëwee fi fekk ko fi man defe naa tout récemment sax suñu mariage bi nga xam ne moom lañ doon amal fruits yi ñu fay kiwal yëpp fii lañ ko jëlee si Thierno te macha allah à des yoo xam ne génnewu si paas génnewu si essence génnewu si dara la nga ko daan jëndee fële moom nga koy jëndee fii lu ko gën a tuuti sax nga koy jëndee fii ak accueil boo xam ne macha allah Thierno boo ñëwee dina la waxtaanal dina la accueillir dina def lépp lu mu war a def kon Thierno ñu ngi lay jaajëfal bu baax di ñaan fii nga nekk di Yoff xéewalu Seydina Limaamu yi fekk la fi te gis nañ ne fekk na la fi bu baax a baax waaye yàlla na amélioré ba mu nekk ndenaat nekk am tóngoor am daagu daan am ngàpparu am laayen am les cités nouvelles fépp foo dem daal nga fekk fa Thierno ba nga xam ne waa tongoor bi dootul déplacé wu sax di ñëw fii waaye tóngoor lay yem rek fekk fa Thierno grossiste je pense que yaa ngi si lancé boobu yàlla na la yàlla jàppale yàlla na la ñaanu waa magi dëkk bi top jàppale la ba nga am si ndam si barki yonent bi Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam maa ngi lay jaajëfal bu baax di jox ñëpp rendez-vous Mandione à partir du 30 août à Yoff Xurwa si spécial Ngomar bi ñuy def ku ko raté rek di nga xam ne cosaan ak aada nga raté kon ñu ngi siy invité ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ngeen baal ñaax